allahumma amin xaj mbàkk nu jotaay bi tëddee jërëjëf oustaz ni ñu ko baaxoo tërale rek incha allah lañ koy fas yéene jéem a tëraleeti noonu daal di leen di fàttali waxtu wi nga xam ne ci la ñuy bàyyi xëdd ak waxtu wi nga xam ne ci la dog fàttali leen nit euh, fi ñu jaar ngir bokk ci jotaay bi yooyu yëpp am na solo xaj Mbàkke ñu tàmbalee ci waxtu bàyyi xënd wi incha allah oustaz xam naa li des fii ak ñuy euh, du fi soppeeku waat mooy cinq ci la ñuy bàyyi xëdd du soppeeku ci soppeeku waat macha allah incha <laughs> kon loolu day tegtale ne <laughs> léegi siise siise yi kontaan ndax soreetuñ korite kon euh, war wàcc war wàcc waaw waaw euh, heure heure dog heure itam dix neuf la ñuy dog incha allah trente trois trente trois waaw benn yoon itam du fi soppeeku waaw du fi soppeeku loolu kat jaar naa xam kat <laughs> macha allah ah, xam naa ba la ñu ñëw ci téléphone yi waaw sunu mbokk Salif Salif Sow. waaw boo mhm. juróom bu góor moo wàcc bu liggéey fële ca Thiès. ndeysaan góor gi Omar Sow. dëgg la euh, tabarkàlla fa la nu xaw a yendoo. ndeysaan nekkoon ca di ko waajal ak. Mhm. ilimaan ya nekk ca jàkk yaak ñoom seen yooyu. ndeysaan waaw ñu ngi ko koy masawu. jërëjëf ko ñaanal suñu borom mu yërëm waa juróom woowu. amiin yaa rabbal alamin amiin. te àpp yàlla na sore. amiin amiin waaw tabarkalla. amiin amiin yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko ñu ngi koy jaale di ko jaal famille bi yëpp. amiin macha allah. jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk yi ñuy bàyyi xel kon ñu fas yéene tàmbali xaar leen ci buntu boobu eh, mbokk mi dafa bëgg a bokk asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah bisimilah. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. ñoo Sall. jërëjëf mu ngi lay fay mi ngi lay fay. ak mboolem ñu déglu si defam jamono ji. ndeysaan. rawatina ci diwaan Noto bu jëmm. waaw kay naka waa Noto yëpp. di leen bàyyi xel di leen ñaanal bu baax baax. ah kay bismillah. Mor Kàbbu la. Mor Kàbbu bismillah Kàbbu. waaw laaj bi ma indi woon tey. waaw. mooy ci diggante ñaari way dencante ndax ak ak sàcc mën na cee am. Mhm. diggante ñaari way dencante ndax sàcc mën na cee am. ma borom leer na <laughs> macha allah jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax te di ko bégee sëñ Mor Kàbbu Oustaz. mbokk mi mi nga tudd Ousseynou Ndiaye Ousseynou Ndiaye ma ngi ca Golf Sud nee na di ànd ak ñun jotaay jërëjëf ñu ngi waa Golf yëpp Mor nee na Oustaz ndax diggante ñaari way dencante ak sàccante mën na ci am. bismillahi rahmaani rahim. subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal alimul hakim. Mhm. Eh, mm. daanaka déedéet. daanaka déedéet. daanaka déedéet. jigéen ji ba fekkee ne jëkkëram dafa nay ba mel ni Pape Dieye <laughs> naya naya nay ba du génne dara yonentu ba noonu na ndaw sa su fekkee xam nga fi muy denc hmm. te la ngay jël ci cin la la jëm hmm. del jël di jëm di def ca cin la ba baax muy doy léegi moo tax ma ne daanaka daanaka su fekkee ne da ko bëgg jël nag di ci faj ay soxlaam hmm. wala mu jël ko di ci dem ay ngénte ki eh, dëjëk ceet ak yooyu su boobaa ma nga ma ngay sàcc macha allah bu dee ku góor ki nag moom bu jëlee rek sàcc na. ku góor ki moom hmm, mu jëlee alal jaram jabaram la sàcc na waaw maanaam jigéen lañ may muy jël léeg-léeg di def ci cin laak waaw mu war a def te jëkkëram joxu ko ko waaye bu dee góor moom mayuñ ko buy jël rek sàcc na ah hmm. kon góor wërta jël alalu jabaram mukk dara dara dara <laughs> sax mu kii tuuti <laughs> waaye bu soxna si jëlalee boppam def ci kër gi wàññiwul dara waaw hmm. mu ne ko dee ci jël li fekk ci cin li la jëm kon bu jëm ci cin la waaw mën naa jël waaw damaa bëgg loolu leen ndax ñu dégg loolu itam rek daal di tàmbalee nday kii kon daal jël def ci cin li jël def ci cin waaw waxal ak ñoom ba loolu leer waaw <laughs> yaakaar naa leer macha allah alhamdulilah jërëjëf oustaz Mor Kab bu jërëjëf salaamaaleykum waaleykum salaam waaw sëñ ma yoro sëñ Mbacke naa ngi def maa ngi lay ziar jërëjëf Fall dëgg ngi sant rek alhamdulilah ñu ngi ziare sunu sang boobu jërëjëf mi ngi lay fay tawfiq ak najaax amin amin yàlla nañ ko yàlla boole Mbacke dafa mel ne affaire bi est-ce que dawoo laal yow ni nga ko laajee métti na <laughs> de. ah man déedéet jotuma laal de waaye xam naa ne <laughs> damay leerlu rek. ah kon nag nañ leerlu rek. <laughs> man moom daa mel ne ñoom li ñu yor dañ koy denc ba mu sori dara béggandiwut. Ah. ma xaaral ma contact ma ne kon bi ak moom laa yor de. Eh, kon baax na ay <laughs> du ma ko gis benn. <laughs> <laughs> maa ngi ziar bu baax nag. jërëjëf jërëjëf Fall. Eh, benn laaj rek laa ko amoon sama mbokk Mouhamadou Guèye bi nekk Pape Sène moomu ngay laaj loolu. waaw mu ne lan. nee na day faj eh, day suba daa war a dem hôpital pour faj ay bañam. Mm-hmm. léegi ne bu demee hôpital nee seen matériel bu ñu ko jëmee ci gimi ngeeg yooyu day na day am yu nàcc yooyu ndax loolu da koy boole koor gi wala nu muy demee noonu. d'accord. maam Fatou mi ngi waa wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ajuma yoro waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk mi ngi tudd alaaji Guèye sëñ Mbàkke mu ngi fële ca Ndar bisi ci la di ànd ak ñun jotaay alaaji jërëjëf Guèye sëñ ma yoro nee na oustaz koo xam ne dafa woor ba noppi dem ci dentiste di faj ay bëñam ndax yooyu ñu koy defal day yàqu koor wala déet waaw en tout cas bu deret ji nekkee ci gémmiñ gi mm. nga xam ne génn na fa mu nekk mm-hmm. bu jàllee koor ga yàqu mm. di génne fa mu nekk mm-hmm. ñëw ci gémmiñ gi mm. jóge ci gémmiñ gi dem ci biir ba koor ga yàqu moo tax kon koo xam ne ki da feebar feebar mel ni feebar boobu man hmm. ngaa bañ woor bu ñu waree nga fay bés d'accord te dem faj sa bëñ waaw te dem faj ji ndax da ngaa feebar insha allah am na solo jërëjëf sëñ Mayoro jëf mbokk moomu mbokk mi dafa bëgg a bokk asalaamaaleykum waaleykum salaam yaaram xaaji Mbàkke waaw ku baax ki Seex Ka Seex na nga def ka maa ngi jàmm nga am jàmm benn aaya laa bëggoon oustaz ñëwal ma benn aaya bisimilah istabara allazina attabio min allazina attabio wara alxasaab ndeysaan ilaa jërëjëf <laughs> jërëjëf ñu ngi koy jaajëful baax te rafet lu duggam bu am solo boobu waaw mbokk mi Mariam Diagne la tudd mu nga nekk ci cellule Ali Imran bu yëmbal ca ñoom Omar Dramé mu hmm. nga ànd ñun jotaay ñu ngi koy nuyu di nuyu ñoom Omar Dramé docteur Abdourahmane ak euh, membre yëpp mbokk mi ca suratu albaqara la dem ak ñun aaya 166 hmm. istabara alladina tubiu min alladina tabau wa raawul azaba waaw waaw mm-hmm. sunu borom day wax foofu ne mm-hmm. bési ngi ñëw ñaar di xuloo xuloo bu neex mm-hmm. xuloo bu neex dafa am ku doon toppe ak kuñ doon topp ñoom ñaar ñëpp topp ga ak toppante ga jëmuñ ca yàlla jëmuñ ci yonent ba jëmuñ ci sunna est-ce que raayalante ginnaaw ci lañ toppante woon allahu akbar ba ñu nee ba foofa nag allazina tubiu ñoo njëkk a dañ ci la si na tabaxu mm. maanaam ñiñ doon topp ñoom njëkk ne gaañi yéen lu nu dal yéen nu ko teg allahu akbar gaañi ah yéen ñooy wax loolu tey jii mm-hmm. buñ delluwaatoon àdduna ngeen xam allahu akbar suñu waram ne xuloo ba lépp lépp mooy war a awul azaba mm-hmm. mbugal géeñu seen moo tax tey dëgg rek li ñu waxante allahu akbar moo tax suñ mbàkk ñaar ñuy ñuy ànd mm. kii di topp ñuy topp kii. Hmm. na ñaar yëpp leer. dëgg la ñu toppante ci dëgg. ñu toppante ci dëgg. macha allah ki ñuy topp na wane dëgg. Hmm. kii toppe na topp ki muy topp ci dëgg. Hmm. lu ko mooy rek. istabara alsina tubiu. mina lasina tabaxu wa raaw alazaab. allahu akbar waaye la gaa xam ne fa law anna lanaa karra. adduna ngeen xam. wallaay waaw <laughs> law law law ànd la naakar macha allah wallaay wax nga dëgg jërëjëf oustaz jërëjëf euh, sëriñ bi asalaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum bisimilah bisimilah. waaw docteur mbaa waaw allo waaw. allo allo allo bisimilah bisimilah. waaw siyaar naa la sëñ Mbacke. jërëjëf bisimilah ñu ngi lay dégg sëñ bi. waaw ñu ngi lay siyaar baax a baax dama bëggoon tey ñu ñëw ñu man si wasamaay wa wasamaay wa d' accord jërëjëf Oustaz ñu jaajëfal ko baax a baax. Euh, tey jaar ci buntu bële. waaw tey jaar ci buntu be hmm. macha allah. Ah. Euh, nee na Oustaz dafa bëgg waaw ma jël auditeur boobu salaamaaleykum. waaw xaaral ah, ñëwagul. nee na nga ñëwal ko ci sóoratu Taariq. xaaral defe naa mel na ñëw na de. laaj ko laaj ko. bisimilah salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. waaw waaleykum salaam. ok Mbacke ñu ngi lay siyaare baax. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. waaw ah, kay tey siyaare sëñ Aliou Sall moom. ndeysaan jërëjëf. di ko ñaan di ko ñaanal jàmm. amin amin di la réew yëpp. jërëjëf jërëjëf. waaw ah, kay Aliou Mangane la ah, bëggoon mu ñëwal ma rek di ko sant bu baax ci leer yu am solo yooyu. Mm-hmm. mu ñëwal ma ci yow man bi his tadal mbidaal. Mm. Mm. ma taxaw fir rijaal yow ma ridaa wal wa jami. loolu jàll itam maamaat beneen laaj. Mm. Euh, koo xamante ne dangay ngay jaay. Mhm. am ci ñoo xamante ne dañuy ñëw di la leb te buñ la lebee itam duñ la fay itam nga dem ba xam ne ñoom duñ la fay. Mhm. léegi buñ ñëwee di jënd ci biir ñenn ñi ñuy jënd nga jaay leen mhm. bu xaw a seer ngir abula leen ah, bëgg naa daal defal ma ci. d' jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax tey rafetlu duggam bu am solo boobu. mbokk mi mi ngi tudd Cheikh Diouf nee nañ ci Diourbel lañ nekk commune de Toki. village bu ñu tuddee Ngule wala nee na ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak ñun jotaay bi. ñu koy nuyu a baax di nuyu waa tooki gaar yëpp. Mhm. tubarkalla alhamdulilah mbokk mi nee na yow man bi istadal nidaal yow yow ma taxaarufi rijaal yow ma ridaawal nga ñëwal ko waaw taxawal ci yow ma taxaarufi rijaal yow ma taxaarufi rijaal. <laughs> yow ma yooyu yëpp. waaw mooy Badar ja Badar ja. sëñ Bakke <laughs> waaw ma yooyu yëpp. Mhm. mooy Badar ja waaw bisu ja wax nam demee woon. waaw waaw kay. istadal xitaal. waaw. mooy ba ba méttee ba métti. ci lañ xàmmee ñuy góor ak ñu dul góor. Mhm. yow ma taaru fi rijaal waaw ci lañ xàmmee ñuy góor. ak ñu dul góor ak ñu dul góor. macha allah ñuy góor. Hmm. la ñuy tuut tuut ñoo duma ñu dul góor. allahu akbar jël seen i defal leen ca ngemb bàyyi la ñu ñibbi. moo <laughs> sukkuran ci laaj ba am solo. leen dem leen fooy. dem leen fooy. <laughs> macha allah jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk mi mbokk mi dafa bëgg a bokk ñu xaar ko bu ñëwee lu jiitu muy ñëw waaw ñëw na. waaw ñëw na asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. suñu Mbàkke ñu ngi leen di siyaar. yal na yàlla nangu siyaar. saa si ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. di jaale président Sall Sow papaam jooju yal na ko yàlla yërëm xaar ka jënd. amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin. waaw man la Mbaye Gajaga waaw. waaw koy Gajaga. ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax. alhamdulilah. di nuyu ñëpp di nuyu waa Noto ba si Mor Kàbb ñoom ñëpp macha allah. ndeysaan. waaw dañoo amoon laaj bu ñu bëggoon laaj oustaz. waaw. boo demee sóor Nisaa yàlla day wax ni wa in xiftum allaa ta'dilu fa waahidatan hmm. mais mu dem ba biir saar bi mu ne walan tastatihoo an tahdiloo bayna nisaa wala harastum hmm. ko mën a dégg loolu lañ bëggoon ustaas ñëwal ñu si d'accord macha allah jërëjëf Mbaye Gadiaga noto guy jama ñu ngi koy jaajëfal mbokk mi ngi tudd Xaadim Njaay Xaadim Njaay ma ngi ca ngaa xam di ànd ak ñun jotaay bi jërëjëf ndeysaan nu <laughs> ngi nuyu waa ngaa xam yëpp sëñ Mor Gadiaga Mbaye Gadiaga ustaas nee na wa in xiftum allaa taadilu waaw foofu loolu yàlla wax fee mu ne walan tastatixoo an taadilu waaw nee na ñaari aaya yooyu nuñ ko koy tekki lele ñaari adl yi ñoo bokkut mm-hmm. ñaari adl yi ñoo bokkut ñoo bokkut est que adl benn bi mm. mooy booy séddale waaw mbaa ngay séddeg ay mbaa ngay séddale saabu mm-hmm. wala xotti wala dàll mm-hmm. nañ ci yem kepp kenn ku ne xottil ko la ko jot jëndla ko dàll yem ci moom mm-hmm. jëndal ko leen soxla ji saabu allahu akbar loolu moom nañ ci yem kepp mm-hmm. dégg nga mm-hmm. geneen àddula gi nag mooy nopp nopp sunu borom ne nopp moom mu leen ko yemale walan tastatiu an taadilu ngeen yemale jigéen ñi ci nopp bay na nisaay wala xarastum même su ngeen ko doon jéem nag ak nopp moom nii ko yemale mëneesu ko kon suñu borom ne na am lu benn ak yooyu kenn ku nekk la ngay yëg moom la ah, ah. ca moom du bokk ak la muy yëg ca ka ca des très bien ko yàlla may jàmm <laughs> loolu de dana am lu mel xanaa <laughs> la ilaha illallah waake ah adduna si yëpp loolu ci dàq maanaam yor lu benn façon yi wute yëpp nag maax la ko tey la ilaha illallah hmm. kii def lay nopp <laughs> neel benn benn kii bëgg la waaw ñaar kii gëm la. ñett kii ragal la. kii ragal la est-ce que ñoom ñett ñëpp a neex de. amul ku am na amul ci kenn kuy bokk sa morom nu mel. waaw. dégg naa ñeent ñi nga yor. waaw dégg naa la kenn du ci bokk ak sa morom. déedéet waaw. kon xanaa loolu oustaz am na politique bu ñu leen di satisfaire ñoom ñeent waaw waaw ku ci nekk parce que liy bégal kee man naa bañ a naqari mën naa bañ a bégal kii waaw rida haas yi hmm. yehi ji bi saxti haas hmm. da nga koy moytu waaw <laughs> itaabun daa imun fi lay la tey lu ko mooy doo am macha allah ki nga xam ne dafa ku ne daal danga koy fekk ci lim nekk saa ki nopp ànd leen ngeen nopp hmm. nañ ma baal ki bëgg ànd leen ngeen bëgg waaw kila gëm. waaw ànd leen ngeen gëm. waaw nekkalu sëriñ tuuti. ki la ki la ragal moom extra. <laughs> waaw ndeysaan c'est waaye oustaz loolu nag eh, maanaam mucc ci bañ a jeng du yomb de parce que yooyu yëpp bu wuutee du ci am boo xam ne mooy gën a neex. waaye moo tax ca je suñu borom wax ca jeng gee ba leen fa jeng na yem. Mm-hmm. waaye jeng gii moom. fii ci nopp gi nag. Mm-hmm. wax dëgg yàlla mu leen ko yemal. ki nga xam ne boo demee néegam da ngay ree mel ne ku amee insomnie mënoo nelaw fanaanee xoole di wax lu ñor ak lu ñorut bokkut ak ki nga xam ne doo yàkkamtee tëri. <laughs> Eh. am na ci kook boo ko mayoon tey cinq mille. waaw yéen koy bokk. ndeysaan mu am ko boo ko mayoon tey cinquante mille. billaay keroog koy mujjee teg bët. yàlla xam na ko de <laughs> doo gis dara. jeex na dara du dellu ci yow. waaw cam <laughs> dégg naa la jërëjëf. su ko daan kenn gi <laughs> ñu koy jégg lu baax di xaar keneen ci ginnaawam. Eh, mbokk mi dafa bëgg a bokk asalaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. bis waaw na ngeen def yéen ci jàmm. ñoo ngi ci jàmm bu baax alhamdulilah. maaleykum salaam man la Lom Disi baat askan bi. na na ngeen def ak coono yi. Ah, waaw mais dina ci baax nag xam nga gars yi di oote ci taalel lam bi xam nga ñu oote ci diine bi. waaw baax na ci de. waaw dina ci baax parce que tey gi nii diine moom mooy lépp waaw wax dëgg yàlla. dëgg la même taalel lamp yi sax ci diine ji la. waaw waaw <laughs> am njëriñ ngeen fay wax. Mhm. léegi man sama question lay laaj. waaw sa question. waaw waaw doo mos waxtaan ak benn huissier. Mhm. comprendre mu ne ma. Hmm. mu ne ma ñoom comme ça ñoom ñu nekk euh, si kii bi justice bi. te hmm. tey man man tey wala su ma defoon benn euh, délit ñoom ñu def mu ne ñoom double pen la ñuy am. Hmm. léegi man nag damay laaj oustaz Alioune Sall. est-ce que yàlla wàcce na aaye boo xam ne pour suñu njiit yi. maanaam président waxuma président Sénégal président monde bi yëpp. mooy njiit yi rek njiit yi rek waaw. voilà voilà njiit yi est-ce que ñoom su ñu waxee loo xam ne nekkul dëgg. ñoom lu si yàlla wax. d' accord jërëjëf l'homme d'ici ñu ngi ko nuyu baax a baax ci mu tudd Khalifa Sarr mu ngi ci Pikine tali bu bees di ànd ak ñun jotaay bi macha allah jërëjëf oustaz l'homme d'ici de nee na oustaz ndax euh, maanaam responsable daal ay njuumteem day tollook koo xamante ne yorul benn responsabilité wala déet déedéet mhm. ba demee ci suratul ahzab mhm. ba yàlla lay wax ci yonent bi dencoon waaw yéen ñii mhm. waaw yaa nisaa nabi ku fi def lu defut du ma la pes menn pes ñaar laa lay pes sam pes ak la toppandoo allahu akbar waaw ah, parce que sa mbir du yem ci yow looloo valable ci njiit yëpp dëgg la hmm? waaw looloo valable fépp dëgg la waaw wa shukran macha allah jërëjëf oustaz loom di wa rahmatullah waaw suñu Mbàkke waaw yaaram laaj bi daa am lu ci defoon moom laa bëggoon hmm, hmm. na ma sax moom sàcc la Uh-huh. tey loolu leer na jërëjëf. jërëjëf mbokk mi ñoo ngi ko jaajëfalaat bu baax a baax te rafet lu duggaatam bu am solo boobu. kii mu ngi tudd Alioune Bara Bara Dieng ma nga ca ngaay FM di ànd ak ñu jotaay bi. jërëjëf Oustaz jërëjëf waa Ngaye FM mbokk mi nee na bu dee góor la nag mu jël alali jabaram ñu maanaam ak càcc ndax dañ koy àtte àtte sariya wala déet. Euh, mën nañoo ñàkk a tolloo. Hmm. ndax ku rayoon jabaram tey. ci hmm. lislaam waaw lislaam du la rey. ndeysaan ku mu rey la nga lu tax hmm. lislaam danaan ku dem ku dem rey ko toxutoon doon dóor da ko dóor rek mu far faatu da koy layal da layal hmm. jigéen nag comme warta dóor hmm. bu dóoree dañ koy jàpp solo la fi ne doon duma sa doom mu far faatu it lislaam du la du la rey waaye bu doom doon dóor bàyyi mu far faatu dañ koy rey waaw ah. parce que Baye daa mel ni dañ koy mayaale bunt mu mën a yar daal. jeex na moo tax bu ci loolu amee ñu nag ñi mën a jàpp ne da doon yar. da doon jubbanti comme l'islam nit ñoo ko bëgg a jàppale waaye moom du rey gee ko intéressé. waaw waaw mën naa ñàkk rey kii. dëgg la moom nekkul rey gi rek. ñu naan ko rey mu rey day wutu day wutu lay daal ne. xam naa da ko doon gi mu farfaatu. Hmm. ñu jégal koo wala ñu laaj ko diya. macha allah waaw est-ce que. lu am solo la jërëjëf jërëjëf mbokk mi. Hmm. am na mbokk mu ci toppoon léegi doon wax wa samaay wa taarix. waaw ñu jël ñu jël kii te ñëw ci salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah bismillah bismillah Oustaz Mbacké Sylla waaw Mbaye Sakho Kaolack Mbaye Sakho naka waa Kaolack lépp na si jàmm alhamdulilah alhamdulilah ñu ngi bu wér a wér a wér jërëjëf yal na yàlla nangu ziyaar hmm. eh, di nuyu sa siyaar suñu soppe jërëjëf Sakho jërëjëf eh, di ko jot li nuyoo waa Kandakoo de bàyyi yëpp jërëjëf Sakho ak mbokki sopp yi nekk marché géej bu Kaolack jërëjëf jërëjëf Sakho waaw mbokki marché nga tamit nee ma jot li ko seen nuyoo baax a baax nga bu Kaolack ndeysaan waaw dé démb amoon na laaj bi ma yóbbante woon bokkoon fii ñëwutoon yi. waaw. ah Bambey Diop Mate Seng bu Kaolack moo ko moo ko laajoon. waaw. mooy ci sourate Ali Imran aaya 27. aaya 27 waaw. ah tur ji la fi naaw te li gën a aara fi layl. jërëjëf jërëjëf mbay Sakho di wootee ca Kaolack. mbokk mi mu ngi tudd Takko Diagne ma nga ca Thiès di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf euh, soxna Takko euh, mbokk mi daa ñëwoon léegi oustaz ak ñun ci sóoratu euh, ci taariq wasamaay wa taariq. Mhm. Mhm. jërëjëf ci laaj bi am solo wasamaay wa taariq day sunu borom. Mhm. moo wàcce ci yonent bi saar boobu. di ci di ci wane ne. am na biddiw bu leer ci asamaan. ndeysaan boo xam ne bii jaar naa bàyyi xel. a anajmu saaxib mooy biddiw bi waaw a mu saaxib xam nga lu tax hmm. daa am ñu ko yàgg a xool hmm. xoolatuñu ko hmm. te ba léegi ma nga fa allahu akbar kon biddiw boobu ku fi jaar gis na la nga gis ko nga bàyyi ko fi mu continuer keneen di ko gis allahu akbar mu yàlla lu loolu mu ne in kullu nafsin la maa aleyha xaafis noonu la biddiw bi di gis nga di ko gis lañ la booleeg ñaari malaaka ñu di la gis. allahu akbar yoo xam ne mi ngi ànd yow di la gis. foo nekk mu jax tàkk macha allah. loolu lay junj saar woowu jërëjëf. am na solo Mbay Saaxo ñu jaajëfal ko nee na tooliju layla fi nahaari wa tooliju nahaara fi layli ci suratu ali imran wa tuxriju alxaya min almayiti wa tuxriju almayita min alxayi wa tarzuqu man tashaau bi xayri xisaab waaw sunu borom nee na mm. mooy dugal lu mooy génne luy dund mm. ci lu dee di génne lu dee ci lu dund allahu akbar ganaar di nen nen mm-hmm. nen di génne ganaar mm-hmm. <laughs> moom la ñuy laaj léegi ginaar ak nen lu ci mag jeex na <laughs> moo ko defee noonu moo ko defee noonu ndeysaan sañ na ko asalaamaaleykum waaleykum salaam Oustaz Mbacké yaaram <laughs> ah man tegoon naa du ñu dugg sax tey waaye ah, alhamdulilah waaw ana sama xarit Oustaz Alioune Sall. mi ngi nii Oustaz ngi nii maa ngi nii. <laughs> man la man la Bintu Konaate dëkk Som. Bintu Konaate nag jërëjëf Malick si. waa Som. ñu ngi fi. tabarkàlla Konaate. Ah, waaw kay si la. alhamdulilah man de eh, koor gi jeex ndax sama école bi. <laughs> ndeysaan. dëgg la <laughs> nga lan laa bëgg ku ma ko leeralal rek. Hmm. sóoratul kaw sara. sóoratul kaw sara. merci beaucoup ñu ngi koy jaajëfal baax yaay booy. mbokk mi waaw jërëjëf Mbacke mbokk mi mu tudd Abdou Karim ma nga ca Touba kan di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf Oustaz jërëjëf sëñ Abdou Karim Jaxate eh, mbokk mi Oustaz suñu eh, maire boobu génn <laughs> nee na surtout Kawsara la bëgg nga tekkil ko ko. waaw jërëjëf ci laaj maam sala boobu ñu ngi ko nuyu nuyu waa Somm yëpp ci Thiès macha allah. al Kawsar suñu borom moo ne yonent bi alayhi salaam inna a'taynaaka al Kawsar. sa doom ji nga ñàkk tey mhm. tey la tabaski. Mm-hmm. jox naa lu ëpp doom. allahu akbar. yow. Mm. jox naa la lu ëpp doom. wallaahi. ndax ni sa xeet bi mel ci yow. Mm-hmm. doom du ko mel ci baay. dëgg la yaa leen seen baay yi. dëgg la gënal leen seen tonton seen najaay yi. Mm-hmm. kon nag fa salli rabbika wanhar romb fi dëj bi. te dem julli ji. waaw. soo delsee wan xar nga ren li sam tabaski. inna shaani ak ku deful ni nga def nag mm. xanaa ji la ca reeka def yëf mm. wal abtar du am barke mukk insha allah wa shukran jërëjëf soxna si ñu ngi koy jaajëfal baax 88 628 98 98 asalaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi neen def ñoo ngi sant yàlla bu baax ñoo ngi ziar bu baax a baax ma leen masawu coono ci li yen di daj ci jàngal ni seen diine jërëjëf jërëjëf sama laaj yëpp nag ci muuru koor la jëm muuru koor waa bëgg xam ko xam ne nii daan nekk Europe. Hmm. njabootam nekk fii. Hmm. xam nga ki nekk fii moom mën ngaa jàpp ni ñaari kilo yi ceeb ay huit cent yooyu lay jar. Hmm. moom ma nekk Europe nag moom ni ñuy ni ñuy natte mu dem. d'accord beneen laaj bi. maanaam bo jullit moo xam dafa am soxna su ko xam ne nii katolik la. ndax dina ko limaale ci asaka yi. d'accord léegi nag bu ñetteel bi ak bu mujj bi mooy. waa ji jot na ay muuru koor ba ñu xëy bisu julli. Hmm. ñu xëy suba teel moom yot na léegi loo xam lu mu dundee tey ak suba ndax moom daa war a génne. Hmm. waaw kay jërëjëf. sukkuraan ñu ngi koy jaajëfal baax bu am solo boobu. waaw dugg bi na solo lool yàlla na yàlla fay ko te fay ñëpp ci mi ngi tudd Ndeye Ami ma nga fële ca Ibrataar di ànd ak ñun jotaay. macha ñu ngi koy jaajëfal baax a baax soxna Ndeye Ami mbokk mi nee na asaka mu du ku am njaboot fii am njaboot Europe nan la koy génne waaw ñu ci nekk rek xam na lay suur nit foofa bu fekkee ceeb lañuy lekk daañ mën natt ñaata mooy suur nit foofa ci ceeb mm-hmm. waaw bu dul ceeb ñuy lekk yeneen lu dul ceeb war ma sel yeeg ñoom seen yooyu. Mm-hmm. xam nañ lu ciy suur nit. dëgg la waaw <laughs> dëgg la foo lañ ko natt rek. maanaam mm, daal réew mu ne la ëpp ca seenu dund ca lañ koy natt. ñun dañ koo natt ci ceeb jàpp ne ñaari kilos yi mooy nangam. lu rek la <laughs> jeex na. waaw lu rek la. macha allah monsieur Koron ci laajam bi. nee na ku yor soxna soo xamante ne bokku leen diine ndax da nga koy génne waaleel asaka. déedéet ñooñu ñooñu duñ leen génneel asaka asaka waru leen. Mm-hmm. ñooñu duñ ñu téen ji. ndeysaan ñooñu duñ ñu téen ji bu ñu faatoo duñ ñu buñ faatoo waruñoo sàng. buñ deexee waruñoo waruñoo donn. waaw ñooñu duñu yooyu yëpp duñ ko séq ak ñoom. moo tax bu bu mudd koor ñëwee doo leen si doo leen si génn wàllu muddum a ndax ñoom bokkuñ ci diini. macha allah wa shukran. jërëjëf Oustaz jërëjëf mbokk mi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax 20h jot na ba teg fanweeri simili ak ñeent. dafa bëgg a bokk ñu dalal ko asalaamualeykum. waaleykum waaw sëriñ bi. ñu ah kay. jërëjëf. suñu laaj woon de. déedéet jàllul woon ngi nii ma tiim waaye laaj tey yéen daa ñëw te te gën a jàmp ndax téléphone bi. ah waaw xam naa fii ba albidaaya rek wala fursa bu ñu am rek. dangaa woote woon démb. démb waaw man maa dëkk Mbour tey suñu saa si eh, kàddu yi taxaw rek. ayca léegi lan moo nekk sab laaj tey. ah mën wala mu. waaw ba tey indi bu démb bi moo may gën a noppal gën laa noppal kay. <laughs> <laughs> waaw maa ngi tudd ba ah, dama dama laajoon démb wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan. wala taqum ala qabri ba ila axiri aaya. d'accord. ba moo moo xoon ni ndax sama muuru koor dafa am benn maire boo xam ni dañoo bokk nekk mu dugg ci l'islam te yàggul. Mhm. ma jàpp ni est ko génnee mënu ma koo jox. macha allah. waaw maa ngi jërëjëf jërëjëf Serigne Dieng eh, di wootee fële ca Mbour ñu ngi koy jaajëfal bu baax tey rafetlu duggam bu am. mbokk mi mi ngi tudd Moussa Ndiame Moussa Ndiame Thiaw. Mhm. ma nga ca Touba Toul di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf Serigne bi ca sóoru taw bala dem ak ñun ay 84. di tolloo fa borom bi di wax wala tusalli ala ahadi minhum maata abada. waaw wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa maatu hum faasiquun jeex na <laughs> dafa am ñu ne ca penc ma ah. sunu borom xam ne diina ji dara ñoru leen ci. tey diina ji. Hmm. dara leen ci. tey ji de bi ñoru leen. allahu yàlla ñoru leen. tey te nag ñu ñëw ci yonent bi ne nag ci diina ji lañ bokk. Hmm. buy li xam ñu taxaw buy julli ñu taxaw. Hmm. sunu borom jox ko liste nag. waaw ne bi ma la jox. bu ci wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan bu ci kenn faatu ba nga jullee ko. ay eh, waaye ñii ñoo ñàkk sens wala taqum ala bu ci kenn taxaw faatu ba nga dem ci xabram di ko ziyaar wala ngay jaale ji mm-hmm. ndax du ñoo wedd yàlla mm-hmm. bi ñuy faatu ay saay-saay lañu allahu akbar waaw mm. wa shukran <laughs> jërëjëf nee na soxna si door a dugg ci diine ji ndax bu génnee muudum koor mën na ko koo jox ah, waaw su fekkee faqir la wala faqira mm-hmm. mën na ko ko jox mu xaw la miskina su gisee ne dafa nekk faqir wala miskina bu doon ca asaka yële nag nga xam ne weesu nañu miskin ak faqir kon mën nañ ko ko jox ndax lan li li taalifil xulub bi mhm. wala maaliftu xulubam ndeysaan kuy door dugg ci diina ji mhm. ñu jox la ba nga yëg ne diina ji am na bokkut ak ni ñu koy def ci jàkk nag mhm. waaw di ko yelwaanal di ko yelwaanal mu tuub ba noppi ñu ne lu waaye man ci ki doon tuub waaw waaw ah, boobu saraxkat kenn daa xamul sax fu mu jëm waaw di ko wax ne din di jàng nii rek gis nga ko <laughs> diine yelwaanal tumaraanke comme tey ndeysaan yal nañu yàlla yërëm <laughs> ah, <laughs> dafa dérangé wu salaamaaleykum waaw soxna si sëñ Mbacke ñoo ngi ziar yal na yàlla nangu siyaar madame Ndiaye sonde captage madame Ndiaye nag waa sonde captage ñoo ngi sant bu nañ laa dégg <laughs> waaw gëj nañoo déggante. bisimilah bisimilah Ndiaye. Ah, dañoo am captage am na benn madame Ndiaye. waaw madame Ndiaye soxna Roqe si <laughs> madame Imam. <laughs> ah non non du madame Ndiaye waaw waaw dafa dafa ne am na fa beneen moom kay bosam lay nuyu fi ah, ñoom ñoom ñoom yi ñoo fa am am madame njaay ah kon xam nga ñu ngi koy nuyu suñu xool da cee tooy lool. ndeysaan yërmande bi oustaz am ci yow. wallaay wallaay foo ko takk weesu ñu koy wax ne ñun chaque fois dañ koy bu ñu ba ngoon di ko mm. déglu ndeysaan. nga xam ne suñu namm du mus a kii ci. du mus a jañ ci moom. tey ma leen di jottali ni yow tamit sans benn sans benn mag bu nekk Ziguinchor tudd Mbaye Ababacar si dana la bëgg loola lool te xam naa ne instant bii li ñu déglu. ndeysaan ñu ngi ma leen di jottali ni yow aussi euh, docteur Ngagne. Mm-hmm. docteur Ngagne bëgg na oustaz lool lool lool lool. ndeysaan Mbacke ñu am benn laaj. bisimilah. Euh, boo par exemple boo jaayanteeg sa borom ne ko damaa bëgg lii soo ma ko defaree dinaa woor léegi lii. Hmm. dañuy laaj ndax koor boobu noonu da nga koy woor te doo ci dagg benn jour wala mun nga di woor noppale ko ba keroog muy ba ba lim bi nga waxoon teg moom mët. d'accord. ñu ngi a a baax. jërëjëf madame Ndiaye ñu ngi koy nuyu tey rafet lu duggam bu am solo. waaw waaw dugg bi am na solo kii mu ngi tudd Maam moor Fall ma nga ca benn tali di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf soxna maam sëñ Maam moor mm. <laughs> ñu ngi koy nuyu Fall yaaram euh, madame Ndiaye nee na oustaz ki Niger wax ne bu ma yàlla defalee nangam danaa woor nangami fan. Mm. saa borom defal ko loolu mu di ko woor ndax mën na koo dagg-daggee wala faaw da koy taqale. mën na koo dagg-daggee man na koo taqale. Mm. taqale gi mooy bu ne woon su ma yàlla mayee nangam dinaa woor ñetti fan mm. bu umee mm. bu ko neexee woor ñetti fan yi tegaloo dëgg la bu ko neexee woor benn fan noppal wooraat benn noppal wooraat benn noppal mm-hmm. waaw mm-hmm. wallahu taala alam wa shukran ci laajam baam sa macha allah jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk moomu mbokk mi daa bëgg a bokk asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw bismillah yaa oustaz Mbacke waaw ñu ngi lay ziar yal na yàlla nangu ziar xaadim naar caaroy sëñ xaadim naka waa caaroy ñu ngi sant bu baax jàmm rek ñu ngi nuyu suñu kilifa googu suñu sëriñ. jërëjëf jërëjëf mu ngi lay fay. di ko ñaanal gudd fan ak wér ak wérle. amiin amiin yaa rabbal alamin. Eh, saa tey nag dañoo amoon benn laaj. benn laaj waaw. waaw ndax eh, benn mbokk ngi nii dafa am benn taalibe bu mu fasantool kóllëre. waaw tout tànk la nag. Mhm. waaye chaque jour daal maanaam. da mhm. koy jox àddiyaam daal. kan mooy jox àddiya. Eh, maanaam comme man. Mhm. damaa fasante kóllëre benn taalibe. chaque jour dama koy sarax daal maanaam. ah waaw d' accord. waaw man chaque jour damay waajal saraxam di ko xaar. d' accord des fois moom su ñëwee su ko li ko sëriñam laaj même su matul day wax mottalil ma ma mottalil ko. Mhm. léegi euh, léegi nag comme korite gi nii. Mhm. mu ne da koy jox maanaam yére bu mu jullee. Mhm. te moo maanaam man mais man am naa am naa ñeneen ñoo xam ne ñu ngi sama kër donte aw ma jabar aw ma doom. Hmm. même bu ma defalul ñoom defal taalibe ndax diine daa am lu ma ci daanak wala déet. d'accord. waaw jërëjëf. Hmm. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax tey rafetlu duggam ba am solo boobu. mbokk mi ma Mamadou Sow la tudd ma nga ca ak ak Daouda Ka wala Daouda Ga. nee na ña nga ca bonno ca mbooro di ànd ak ñun jotaay bi ñu ngi koy jaajëfal baax di jaajëfal waa mbooro yëpp mbokk mi génn léegi oustaz nee na moom dafa am taalibe boo xam ne rek xam naa da koy faral di sarax ak di ko dimbali mhm. muy laaj ba xam bu fekkente ne li mu koy jox noonu moom am na jeneen jaboot wala ay mbokk wala yu demee noonu ndax loolu jaadu na wala déet waaw jaadu na de wax dëgg yàlla mhm. parce que comme yaa ko jaayante mhm. di ko def bu la ci kenn découragé defal amul benn problème. góorgóorlu nag ba ci say mbokk ñoom tam ñuy jot ci àq yi nga jot rek. lii mën naa bañ joteeg la la dara. dëgg la bu waxtu julli jotee korite ñoom seen yooyu tam loo ba mm-hmm. mën a defal nga defal leen. Mm-hmm. waaw bala mën a defal nga defal leen. waaw law taala alam wa shukran macha allah jërëjëf jërëjëf mbokk mi ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci laajam bu am solo boobu mbokk mi dafa bëgg a bokk asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. loolu waaw. salaam mel na de Aliou nga def Cissé. sant ak mu ñëw moytu rek xawala moytu rajo bi tuuti rek. waaw li ngay def jërëjëf yàlla fay leen rek. jërëjëf si yàlla jàngale fay mm-hmm. am na ku mu wàcc wala déet. d'accord. ñu ngi koy jaajëfal baax te rafetlu duggam bu am solo boobu mbokk mi suñ mbokk mi ngi tudd Souaybou Ndiaye ma nga ca Thiès di ànd ak ñun jotaay bi jërëjëf Souaybou ñu ngi koy nuyu tey rafetlu ànd googu Euh, ndeysaan mbokk mi nee na asaka mu dum koor ndax am na ko mu wàcc walla déet. waaw xanaa kii amul ba tax nga xam ne amul dara dara dara dara. Mm-hmm. moom wàccagum na ko. Mm-hmm. ca borom xam-xam yenn ya. Mm-hmm. wàcc na ko ba faw ca yeneen borom xam-xam ñoom Shaafi ak ñu mel ni ñoom. waaw am na ñoo xam dañ ne su fekkee waa ji amul wàcc na ko ba faw am ñu ne déedéet. wàcc ko ba faw daf ko wàcc ba baa ma koy am nag mhm. fii ba àddunay tukki allahu akbar waaw wala boog àddunaam di tukki moom <laughs> macha allah jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk mi vingt heures jot na ba tey ñeent fukki simili ak ñaar ñu ngi ci euh, ci bu mujj bi ku tumbal bu mujj bi salaamaaleykum waaleykum salaam rahmatulah bisimilah bisimilah eh, waaw na ngeen def naa def alhamdulilah alhamdulilah ñu Mbeteet 2. Mbeteet 2 naka waa Mbeteet. waaw Mouhamad Ka. Mouhamad Ka. waaw maa ngi bëgg oustaz bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf Ka. Ah, di nuyu waa Mbeteet yëpp. Ah, dama doon laaj eh, benn laaj laa laa moo tikkil magam. waaw. aaya alquran muy wax fa ida rakibu fil fulki daawullaah muxlisiina lahu diin fa lamma najjaahum ilal barri fa idaa hum yusrikuun allahu akbar lay ndeysaan hmm. leer na naa ñu jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax te rafet lu duggam bu am solo mbokk mi mi ngi tudd mbokk mi mi ngi tudd Anta Jaañ hmm. mu nga ca kaw lax di ànd ak ñun jotaay bi macha allah jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëful baax tey rafetlu ànd bu am solo boobu mbokk mi mm. laajam baa ngi ci surat ankabut mm. du sori aaya 65 wala mm. borom bi di waxee naan fa ida rakibu fil fulki daawullaha muxli déet muxlisina lahu diina mm-hmm. falamma najaahum ilal barri idahum yusrikun waaw koy booba suñu borom nee na dafa am ci pinc mi ñoo xam ne xam na leen fu ñu jaaxlee jox ko cër fu mu dindee cër ba ñu jox ko keneen allahu akbar buñ jaaxle daal ne yàlla yow la. ne yàlla yow la. bu dëkk bi neexee nag ñu tegale seeni tànk ci lan la ko misaal ci gaal wala la waaw ci daf ne. Hmm. da koy misaal ci gaal. gaa yi ah. dañuy war ci gaal gi. Hmm. yëg ne météo nee na. <laughs> géej gi dafa yëngatu. Hmm. ñu dem ba ci biir. effectivement na ma ko waxoon mu am. Mhm. gaal ga di jax ak yëngatu. kenn ku nekk ne yàllaa ci des. daaw laa moxli si waaw daaw laa moxli si na. ñëpp lu yàlla ji bàyyi biteel yaag yëpp delloo yàlla affaire yàllaa ci des yàllaa ci des yàllaa ci des ba gaal ga jubbantiku. waaw ñu ñëw ba ca mbeex ma. Mhm. ku ci nekk làmb sa ndigg. <laughs> man kay ma bàyyi da laa joxe li la xamoon ne ma ci mujj. waaw ah, sama jàll xamoon naan dina ma ci génne. waaw cey gii jay sama ñuul càll geeg. allahu akbar sama téere barab sàng. allahu akbar allahu akbar léeg-léeg dañuy dem ba mu yàgg ñu ne diw daal moom yàllaa di taxawoom léegi. ma ne waaw moom kañ la noppi woon a bañ a doon taxawoo. jeex na nga xam ne ñu ci jaaxlee lañ naan yàllaay taxawoo waaye bi ñu amee pexe moom ñun ñoo ko doon taxaw gisuloo fi ne boo demee boo demee ba <laughs> la de ko am sax ñu ne ko yàllaa ko dogal parce que moom am yàlla moom yu metti yi daal la moom loolu yàlla jun ñu foofu <laughs> ndeysaan suñu bu mujj kon sëñ Mbacke daa mel ni waaw ñu jël ko as euh, génn na waaye ñu xaar keneen ci ginnaawam rek euh, tàggatoo ko incha allah jéggulu ko kenn ñëw wuutu ko rek remplacer ko ci jataay bi mi ngi nii absina incha allah ñu ci suuf nañu jéggal ma ndax su ma ko làmbee rek nekk ci waa biir réew mi ñoo ko yàqal waa bitim la mm. waaleykum salaam waaw alhamdulilah kon bëgg naa mm, kay ah kay <laughs> ñu ngi leen nuyu soxna si am na solo kontaan nañ macha ba léegi ñu ngi koy déglu ndeysaan ñu naa gannaaw yàlla bu muy muuru moom moo tax ak soxna Seyna Fall est-ce que xadi la maa ngi dëkk Fall Seex waaw ah, kay saaxo mais bu ne asalaamaaleykum la sama xol bi day mel ni garaax lañ <laughs> seetal lool rek ko bëgg te seetal lool rek yal na yàlla dëgëral taxawaay amin yaa rabbal alamin amin barke liggéey bi man allo waaw xadi waaw maa ngi bëggoon ñëw ci yow ma yokkoonu naa si kalfaraasil mabu kalfaraasil mabu suusi waaw mhm. waaw maa man sàqula ma waasina wu ba aaya bi jeex ndeysaan loolu bëggoon mu ñëwal ma ci jërëjëf mhm. jërëjëf ñoo ngi koy jaajëfal bu baax bëgg nañ ci duggam bu am solo boobu Baba Ndiaye mi ngi ànd ak ñu jotaay mu nga fële ca ndikku nga hmm. ànd ak ñun jotaay bi masha Allah sëñ Baba jërëjëf mbokk mi ngi noonu oustaz nee na euh, mi ngi noonu fa amaaman saxulaat la bëgg nga ñëwal ko ci mawaadinuhu ba mu jeex waaw hmm. nee na yow mu yàkkoonu naasu kal faraasil mabusuus kal faraasil mabusuus hmm. mbaake xam nga alfaraas waaw moom ñu wax lupp luppaan lupp luppaan wala luppa lupp ah, te ñenn ñi di kii waaw <laughs> yàlla ne la bis ngi ñëw. Hmm. nit ñi ci boppam ñooy mel ni lupp luppaan yi. allahu akbar bu suuf waaw hmm. parce que lupp luppaan boo leen fekk ñu ñu dal fenn. Hmm. boo xuusee ci seen biir. waaw ñoom ñëpp duñ bokk benn direction. déedéet waaw daa mel ne ku ne fa ko ngelaw li gën a jëmee rek lay jëm. <laughs> sëñ Mbàkke. lu lu muy misaal. li muy misaal yomal xam lay misaal. waaye gis nga bi corona ñëwee fii ci dëkk bi. waaw Mbàkke waaw. gisoo ba ker mu ne tëll ni ñëpp jaxasoo. ca ñu jël position yi ñu jël la ñu jël lii ñu jël lii ba mu eh, eh, eh, ay waay riiram mi waaw <laughs> ba mu yàgg ñu commencé wàccaan ndànk-ndànk voilà hmm. kal farasil mabthuus dëgg la de wa kal ihnil manfuus montagne yi hmm. wëttéen hmm. xam nga nooy na buñ ko dëbbee nu mel. xanaa <laughs> gën a nooy. jeex na nepp kon <laughs> daa nooyoon buñ ko dëbbee nag danaa nepp. yàlla na yàlla dimbali amiin yaa rabbal alamin kon xam naa ak mhm. eh, yi eh, am naa nag benn laaj boo xam ne oustaz soxna ci nga wax ko ci ñaari baat waaw na xaritam bi daal moom xam naa day ab gëstukat nag waaye da doon wax ci sa waxtaan yooyu ngay faral di wax ci at yi Aïcha amoon bi ko yonent yàlla Muhammad di denc waaw ak at yi nga am ne moom la amoon bi muy dem kër waaw mu ne léegi loolu eh, maanaam nan lañ ko mën a comprendre ne dafa xaw a diis ci ay noppam ndax waruñoo gën a euh, gën a xóotal gëstu beeg waxtaan week yooyu. ah gën a xóotal gi de xam naa moom <laughs> gën a lay doon rek. waaye noonu laa laamee woon. parce que su boobaa. Mm-hmm. loolu naq da lañ koy def. ak naqdul adabi. Mm-hmm. loolu ñoom Cheikh Tidiane bi tey ñooy féetewoo yooyu. Mm-hmm. ndax juróom-ñeenti at la amoon. ndax nangam ak nangam. en tout cas téere dem nañ ba ne. Mm. bu ñu daan reer léeg-léeg suñu yaay si reer nelawe fañ doon reer. dëgg la dëgg la. loolu nag at ya at ya néew na. effectivement lool. loolu nag at néew na. lool du jaaxal kenn nag xam nga lu tax. Hmm. sallallahu alayhi wa moo bëggoon a carré. Hmm. xam nga carré. carré waaw. ñam àndaloon. Hmm. daf doon dund ñoom ci social. ci politique. ci économie. ci tarbiya ruuxiya. ndeysaan. mu ne mu ne mu ne Omar may ma sa doom. waaw kon Omar am na doom jëmm ko may. ndeysaan nawloo àll ko. Aliou amul doom jëmm ko may. Mhm. Ousmane amul doom jëmm ko may. saan nu muy def. jëli doomam may leen moo tax mu jël Ousmane may ko jël Aliou may ko. waaw waaw mu def ne Omar may ma. ku ca des. ah Aboubacar. gis nga Aboubacar. Hmm. bu fekkoon doomi tubaab yi wala doomi sagar yi dong am. Hmm. da ko may ma ko. dëgg la ndax maanaam mbir mi du mbirum soxna ñun li ñu xool. <laughs> Ah, ñun li ñu xool euh, mbirum soxna ak yooyu waaye moom mbirum leneen la. très bien leneen la waaw. parce que yonent bi euh, taadudu zawjaati yi. Hmm. lépp am njàngale la. dëgg la maanaam soxna yi dafa dafa bokk ci mission bi dafa am lu ñu doon dox. <laughs> moo tax bu bu Aboubacar bii ak suñu Aïcha. Mhm. bu la ci dara jaaxal naan six six cent la am ak nangam ak mhm. nangam non. waaw parce que mu may ko. xam nga léeg-léeg nag oustaz day am ñoo xam ne nañ ma baal dund ci benn milieu wala benn environnement boo xam ne loolu bu ñu ko waxee maanaam baat yi day diis seen i nopp dañuy jàpp ne lii dafa garaaw def ko muy déli daal ba tax duñ ko mën a nangu. duñ ko jéem a comprendre it. mu ngoog léegi nag dunduk alayhi salaam bi mhm. dafa amut lu nekk déli macha allah macha allah sang ci Madina. dafa am jenn waa ju doon wax ci wàllu xarafal jigéen ñi. Mm-hmm. xam nga lu wax. Mm. même bu ko yonent bi. juum na euh, juum na. wallaahi maa ngi jégul sax ci li ma doon bëgg a wax. yàlla yónni woon. waaw juum na juum na. <laughs> ki yàlla yónni woon. fal yaxtari lazina yuxaalifuuna an amri an tusiibahum fitna. wallaahi ndeysaan. lu rek la nag. macha tax soxnaam yi mu doon denc. Mm-hmm. kenn ca doon gone. jeex na. ñi ci des ñëpp ay màggat lañ allahu akbar moo lay wan ne du mbirum soxna dé loolu loolu mat naa bàyyi daal ah du mbirum soxna du mbir moomu <laughs> <laughs> la woon mhm. taalim taalim muy jàngale waaw siyaasa la woon politique muy politique mhm. euh, la ca tege mooy taxkim la woon mhm. wàllu atte wàllu atte tashri la woon muy constitution dëgg la xam nga ne soxla su mel ni Zeynab waaw waaw bu fekkoon sago doomal déedéet doomi ad maanaam doomam jum yor ci kër gi saaru fils adoptif yooyu waaw yor soxna borom bi ne ko na ko wacc mu wacc ko mun ne ko takk ko ndax wane ne loolu amul ci penc mi ah loolu du bakkan waay bu fekkoon bànneexu dong la loolu du bakkan de <laughs> te nag dégg nga la ma waxoon jaabir hmm. jaabir dangaa tey jaabir dafa leeroon waaw tey daal dafa solu compéti ba jëkk comme ni Mbàkke def nii rek <laughs> mbax su weex nangam ak nangam macha allah Mbàkke mer <laughs> kaar kaar dégg nga waaw yonent bi xool mu yàgg mu ne ko waaw hmm. jaabir xanaa na ngaa takk séet mu ne ko waaw mu ne ko lii kaay siite koy def. ndeysaan daan ne ko nag mbaa gone nga takk déggal. Hmm. Hmm. mbaa gone nga takk. waaw waaw parce que bu fekkee mbirum seetu la ak yooyu da ci am yoo xam ne gone ko man dégg naa <laughs> xam nga ñun nag ay gone lañu waaye dégg naa yoo xam ne mu ne ko mbaa gone nga takk. Hmm. jaabir na ko déedéet. mag laa takk de. mu tegal ko ci ne ko. mënoon ngaa takk gone ngeen di fo. sallallahu alayhi wa sallam ngeen di fo. kon su fekkoon for dong ma tax yonent bi denc soxna du denc menn màggat waaw kon xadija sax du ko denc déedéet ndax xadija màggee na fukki at ak juróom nan yem foofu waaw am na yeneen ak yeneen ak yeneen waaye foofu mat naa yem incha allah ba ëllëg kon fàttali nga nuyu incha allah euh, euh, cinq heures quatorze ci la ñuy bàyyi waaw di dog heures trois ci la ñuy dog incha allah suba la al suba la alxames kon ah. mooy am waxtu wi Assane Thioune euh, nidaatu rahman la leen di tegal bu jeexee vingt-deux heures trente ci la ñuy door a ñëw incha allah bu leen toxal seen ak déglu jërëjëf